jaay sama gars yi maa ngi bëggee yéen ñëpp maa ngi fii waaw fi laa ne quoi si ak kii bi dépôt aliment bi quoi bu Ousin quoi boo ñëwee daangu mi nam boo ne Ousin rek benn ginaar yooyatul benn nag yooyatul benn fas yooyatul aliment bi ngi lay jaay mélange xaw ma calcium lépp lay jaay jaakaarloog booy bu lay bay as ay eh, bro alem nice ma sama gars yi dama def benn briefing bu ndaw def wax ci Matar la Kagulaar sortem bi wax ci comment dirais je Matar wax ci Mamadou Ibra Kane wax ci El Hadj Diouf xam Sonko nga koy wax Sonko a a yow boo porte plainte Sonko xaa kon waa Auchan ak waa Total ñëpp Sonko la ñuy porte saa yi lii li ñu naan li ñu naan wokkatu bu yemoo geesu la Sonko def ci dara dafa déclenché affaire bi rek donc laaj ju bàyyi sa waxi dof yooyu léegi waxtu leen waxtu leen waxi Adji Sarr léegi waxi waxi waxi dof ngeen wax parce que xam moom moom c'est foutu en l'air léegi nga ñëw fi di wax ay waxi problème ak yooyu laaj ju da nga dof dama keneen ki may dem mooy mooy Matar la Kagula Matar Matar seetaan naa la nga naan euh, Sonko warul dem si euh, Y'en a marre ah parce que Y'en a marre dañuy liggéey ak tubaab yi ñu loolu suñu yoon new ci Matar ñu loolu suñu yoon new ci Matar loolu lu ma bëgg xam ko Matar Sonko euh, élection yi élection yi passé bi ñuy wax ak Sonko bi bi bi Y'en a marre oote invité Khalifa Sall invité Idriss Sonko kenn ñëwul Sonko rek a ñëw toog ak waa Y'en a marre isnfil toog ak waa Y'en a marre def ak ñoom discussion donc lien boobu ñoom euh, Y'en a marre ak Sonko yow yaa koy yàq si tu as un problème personnel a marre da nga koy réglé tu vois da nga koy réglé parce que ko kii vrai Matar seytaane

aji saar bi Sonko du ci génn yéen ñëpp da nga defoon ne Sonko aji aji saar bi mooy deewam kaso lay man ni Khalifa Sall ak Karim waaye garab bi nekk garabu penc law bi ko gis ba koy gor mu génn ci nag léegi bàyyi ngeen aji saar yaa ngi wax ay waxi kii yow Thierno Alassane Sall nga génnal nga àndal Thierno Alassane Sall yow ay tokaar rek nga àndal ko ko xam Thierno Alassane Sall boo taxoon fii laaj booy kan mooy Thierno Alassane Sall xamuñu ko dañaan xaar dañaan mbokk kii la mbokk alaaj sama copain bi toog te sant moo leen koy teg donc Moussa da ngay bàyyi teg si tokaar fas yi gagné Sonko mooy fas bi gagné fu ne da nga am déception parce que yéen ñëpp dafa ne dootu si génn ah na ci léegi ngeen di créé ay affaires yooyu Matar amal tuuti ngor waay wa daan ay su la su waat di fen rek da waat di fen rek bayaan non sama sama gars yi laay classe ala ah. as ku bëgg Sonko nga ah ki may ki may ki may waxal mooy Mamadou Ibra Kane quoi Mamadou Ibra Kane nee na Sonko du du du du politique quoi du am du du politique quoi parce que statut homme politique def nii te Mamadou Ibra Kane yaay naafeex maam yaay naafeex léegi daal politique mooy comme def Macky Sall quoi bu bu France di solee ngeen yaarama ko laa isaan fi statut statut politicien euh, maanaam yéen politicien dëgg mooy kamtee yi dañ koy Sénégal dañ jox doole mu jël doole ji di si wëlbati ah boo war a def mandat sept ans de cinq ans yéen kooku mooy politicien bu ñor bu ñëwee mel ni Sonko jub indi leen si diin ak yooyu noonu ngeen ne ko kooku amul statut politicien mais Mamadou Ibra Kane t'es pas sincère t'es pas sincère yow yaa amul statut journaliste parce que fi leen leen Youssou defar ngeen ba ngeen xëy trahir ko waxu leen ko bi dem loolu mooy wor loolu mooy amul statut déontologie yow yaa amul déontologie amoo éthique parce que Youssou Ndour daal defar nga wor a a ah, a dem maa ngi waaj waaye nekk fi di ah nekk nekk fi liggéeyu doon nit ah liggéeyu doon nit cinq ans xaw ma yoonu dix ans xëy rek dem poignard dans dans le dos yow moom yaa amul dóontu yow moom yaay naa fex sama gars yi maa ngi tëj vidéo bi mise au point loolu ah sunu loxo loo si yokk yow ah yow kañ nga muuma tapette bi Badiane Mamadou Karim séddewul quoi ay naafeq la waaye moom moom ak Alioune Diouf ak ñëpp nee na day porte plainte Sonko man ka ah, man ka soo porte plainte Sonko xanaa waa Auchan ah, ak waxal ma ne am démocratie de. waaw mais xam nga rek c'est gars gars amul lu muy wax démb journaliste yi gars yi dañ jël dañ sàcc ginaar lañ jël ak carotte ak pomme de terre ok waa kay danga ba ñaar ba pare ah mooy mooy dafa dof